Amadou Ba je xel ma mënul xalat wala nangu mu nek maire de Dakar. ah bon ah oui parce que tu suuf bu ñu saax saaxee biir Dakar loxoom mi ngi ah bon xam nga comme directeur général des impôts et domaines. Ensuite, -hmm. ensuite mu ministre des finances comme le patron des gens qui s'amusent avec le foncier. on ne peut pas confier la ville de Dakar à un pilleur de foncier et le problème à Dakar c'est qu'il souffre quant à Abdoulaye Diouf Sar, je sais que Yoff moom dina metti pour ñu jëlee ko foofu wante am nañ fa benn ndaw bu ñuy wooyee euh, euh, Seydina Issa. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla mooy suñu yaakaar te mooy yaakaaru ndaw yi. moom tamit mbaa defoo ko pied de. <laughs> non non moom wax dëgg yàlla sax moom ñu ngi koy ndokkale di ko ndokkale bu baax a baax ci mbas bi gis nañ taxawaayam. Mm-hmm. Abdoulaye Diouf Sar, il mérite euh, notre respect il mérite notre considération parce mm-hmm. que il a tout de même montré ses preuves au service du peuple. wante Dakar dafa am borom dafa am borom te kooku ku mu neex ku mu naqari c'est Khalifa Sall.